تتاربون Thank you. nañu waaye bu leen yem ci alerte ki bëgg def troisième mandat mu ngi def ay stratégie am stratégie bi njëkk mooy confisquer les léegi dafa mel ni prison Rebeuss dafa mel ni mooy waxtaanukaay ñëpp ñi nga xam ne ay démocrate lañu bàyyiwul journaliste. seen pexe yi muy wut il faut que ngeen libérer le peuple peuple bi mu affamé yokk denrées de première nécessité yi wàññi njàng mi wàññi santé bi loolu di ko xeex ba pare nag Sénégal kenn mësu yeew mu jàpp ay nit di leen persécuter di dal ci seen kaw nangu seen ay liberté nangu seen ay droit di tànn kan lay demal élection di tànn ku dul dem élection ma ni dañuy bokk moom moomu moo dul bokk ku bëgg bokk da ngay bokk benn nit kese moo dul bokk ci Sénégal et il s'appelle Macky Sall Macky moo dul bokk ñépp dinañ bokk du teye liberté nañu liberté faalewu leen kenn taxaw ngeen tem taxaw leen taxaw leen jërëjëf jërëjëf tàccu leen bu tataay na ngeen bu ngeen boobu na bébét Sanusi Ba le philosophe Sanusi Ba asalaamaaleykum wa rahmatullah olof njaay dafa wax mu ne ku jaaxaan di saw balaa kenn tooy nga lóor dama wax ma ni réew mi benn la bu ñu amee ñu ñu ciy toroxal mu am ñu ciy seetaan ñooñu xamuñ li xew Ousmane Sembène dafa wax ca filmam ba mu ne boo gisee tan muy lekk sa yàpp morom na ko dàq ndax sa yàpp lay lekk man ma nekkal fi tey parti politique bu ñuy wax ngir solution Afrique mais li ñu fi indi mooy le Sénégal pour la justice te dama bëgg rek bala maa jeexal parce que mbir mi ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp ñu ànd di wax un deux c'est un deux c'est un deux c'est un deux c'est fini un deux maa ngi ñaanal kilifa yi fi teew yëpp yal yàlla may jàmm parce que gënoon naa yomb tey ñu nekk dans les couloirs du palais yore oto yi mon ami Guy Marius Sagna avec qui j'ai la prison pour la première fois Monsieur Mbodj, mon formateur, celui qui m'a donné pour la première créé, la créé et a fait moi un philosophe. may nuyu yéen ñi fi et tous les leaders le grand et pertinent Abdourahmane Diouf et tous les autres leaders vive pour le Sénégal en bas le président Macky en bas la dictature en bas la dictature en bas la dictature Monsieur Baïdiba se prépare s'il vous plaît salaamaaleykum dégguma leen salaamaaleykum ba may ñëw léegi dañ ma yóbbante ci yéen ñu ne mbooloo mi ñu gis nii yëpp dafa tiital suñu président mi ngi leen di laajaat ndax mën na naxanteeg yéen bokk wala munta bokk ma laajaat leen ndax Macky Sall war na bokk wala warul bokk ndax Macky Sall war na tànni kan mooy présenté ci élection yi wala waru ko Macky Sall ndax war na jàpp ay jaam ya nga xam ne liggéeyal seen dëkk moo leen tax a tëj leen ci kaso yi parce que dëgg la wax est-ce que loolu war na ko wala waru ko est-ce ñun war nañoo taxaw temb ngir Macky Sall bañ a briguer troisième mandat war nañu wala waruñu kon nag wax ji leer na nañ ko def na sërees que pour ñi nga xam ne dañ leen a jàpp tëj leen ci kaso bi te ñuy ay góor te ñuy ay patriote te dëkk bi rek ñor leen ndax ñi nekk ci nguur gi ni ñuy luubalee alalu askan wi dong moo leen tax a jug ñun nag nañu am fulla te jël suñu destin en main amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw engagement moom ci doomu aadama rek lay